edi fof mo haalde wondiraɓen fulɓe ɗumen hanndi ko eh, ñalawma gacci ganduɗa o hooreji leydi mbiteɗo makky sall suɓa e dow teddungal wi en faw ɗum sénégal en gakkino nguru sénégal en fijiri sénégal saabu yimɓe majjani ko woni koye dow mum wona lawol wona ndimaago wona dama wax ci pelni que bésu gàccee la ñuy dund ndax kenn réerewul mbir ni Macky Sall lu muy doxal nii il fait du Macky maanaam ci li mu newoon da nekk ba tey le 15 février ba mun ba conseil constitutionnel waxee ne woon naa leen man wóoluwuma Macky Sall pour mu organiser élection yi bu ñu yeboo xalaat keneen ba mu génnee démb li mu wax ci mbirum dialogue bi jàpp naa ni Sénégal yépp am mbetteel ndax conseil constitutionnel daf ko tënk te du conseil constitutionnel moo ko tënk conseil constitutionnel dafa fàttali constitution Sénégal wax tënk ko moom ba muy aj élection yi sukkandiku simplement ci benn proposition bu parlement bi jot te parlement bi àddugu ci mu aj élection yi kooku pour ajji élection yi mu wéy waroon na exécuter décision conseil constitutionnel waaye dafa bañ dialogue bu muy laajte bu muy woote du rek ngir jàpp date ngir aussi xool moom nu muy wéyalee mandaam au-delà du 2 avril bu ngeen déggee li mu gën a tudd démb ci discours am bi mooy article 36 2 constitution bi nga xam ne day ne tant que tànn guñu ku koy wuutu moom ba installé kooku moom dina wéyal kiiwam te nee na loolu waxtaan bi def ci war a am solo mooy ñaari tomb yu mu teg ci waxtaan bi beneen bi mooy amnistie amnistie mooy lan mooy mbirum lépp lu fi xew ci réew mi te nga xam ne ay njombe yu dul jeex ñu wax ko petrole bi gaz bi rapport Covid bi ñi fi dee ñoo ñëpp nañ ko naxasaay pour lan pour moom mu mun a am jàmm dem ndax même moom bu demee ku ko wuutu war na mën a bàyyi prisonnier politique yi nga xam ne ak yeneen prisonniers yi nga xam ne du ñu ay prisonnier politique nag am nañ ci ñoo xam ne nag ay vrai casseur lañu dañu def ay njombe kooku ku ko wuutu war na organiser dialogue xool ci yan anam la ñuy libérer ñi nga xam ne par centaine ci conditions yu atroce bu fekkoon dafa am yërmande du démb lay découvrir ni am na ay prisonniers je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il trompe plus personne et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel qui est un véritable appel trompeur, une véritable diversion. Ce qu'on attend de Macky Sall, c'est dans le cadre de la constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota, c'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions sont réunies. Fixer la date de l'élection présidentielle comme lui enjoint le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus non seulement changer le processus, mais même temps de valider le fait que malgré qu'il ait donné l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril, il ne l'a pas de manière explicite. Il dit que le 2 avril, il y a l'article 36.2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors de son fameux dialogue, pour lui permettre éventuellement que les gens lui les tra communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qui vont, qu'il va inviter et qui constitueront, qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une pour lui. Pour que tous ces gens lui disent, vous êtes le plus le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36.2 euh, de la Constitution nous permet de, de l'envisager. Allons voir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire que allons voir le Conseil constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoie sur des décisions du Conseil constitutionnel du 15 février. Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel Ce président n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires. C'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir. parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et à mener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue, dialogue, mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné, sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue. Le dimanche, nous ferons des actions. Et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par plateforme. Nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais. Merci. Assalamu alaikum. Juma Moubarak. Mangi Toudou Cheikh Gueye. ñëw fii ci turu coalition Khalifa président ci turu Khalifa Ababacar Sall di doore samay kàddu pour wax leen ni FC 25 bii toog ay candidat yoo nga xam ni jàmm ak salaam moo leen soxal pour nekk président la république liggéey réew mi ci jàmm ci dal moo leen soxal moo tax may wax ni bu leen jaawalee kenn mënu noo ja euh, booleeg ay candidats spoliés ou bien ay forces vives wala leneen li ñuy wax mooy nañu wax dëgg te yàlla rek bu fekkee président Macky Sall jàmm la bëgg li mu def dogal bi mu jëloon pour arrêter processus bi te ñëpp xam nañu tey campagne bi bu doon déroulé tey à minuit la waroon jeex dimanche ñu dem voté ji mais lan moo tax loolu amul moom moo jóg ci coobare boppam waxtaanul ak kenn ku nekk fii ni damay arrêter processus bi daal di projet de loi bu dem assemblée nationale mais conseil constitutionnel ni li nga def dëppoowul ak yoon ànduma ci na xoolaat ban ba àpp ngay jël pour ñu amal élection yi mais àpp bi Macky Sall jëloon mais jëlu ko woon ci coobare boppam yoon moo ko ko santoon ni ko foog nga jël dogal boobu pour élection yi mën a am le vingt cinq février yoon boobu boo ko santoon moo fi nekkaat tey moo ko jox ndigal ni ko na nga tànn àpp boo xam ne élection yi mën na am waaye nan ngay wute jàmm jamono xam ñi ngi nekk ci campagne électoral bépp candidat bu FC vingt cinq jóg ñu gazé la nga ni jàmm ngay bëgg mais les candidats du FC 25 dañu am sañ-sañ dem ci askan wi wax ak askan wi yee askan wi loolu defu ko may artu ba mu jëlee dogalam pour arrêter processus bi ay nit faatu nañ ci ñu ngi leen di jàlle ay nit am nañ ci gaañu gaañu yu métti mais fi mun na jëmale buñ ko arrêté wul lu ëpp ay li dee ci ginnaaw moo ko moom mooy naraam lu ëpp ñu gaañu ci ginnaaw mooy naraam mi ngi ñu jëmale ci guute goo xam ni kenn xamul lu mu doon mais Macky Sall lan la bëggati ci réew mi ñoo jiitu wax nañu ko boo dégloo waxam dafa ni le 2 avril sama mission lay jeex mais waxul mandat mission la wax ñun dañu ni le 2 avril Macky Sall ne ne plus être président de la République du Sénégal ay wax day jeex donc li muy woote ci dialogue mais ñi mu war waxal mooy ñi nga xam ne conseil constitutionnel tànn na nit ñii ñoo war a dem ci joŋante bi amul keneen ku mu war a waxal ci jàpp àpp élection yi loolu yëpp pour jaxase nit ñi pour lëndëmal xelu nit ñi pour wax ni man je suis un homme de bonne foi lii ak li mais un homme de bonne fois mooy nga respecter d'abord décision conseil constitutionnel surtout que c'est le président de la république Macky Sall ne dello soit xelam ñi koy dugal ci li muy dugg ëllëg li wolof doon wax moom mooy am ku bañ sa ndono sa deewi ñaaw li muy def dëppawul ak Sénégal dëppawul ak cosaanu Sénégal dëppawul ak cisraayu Sénégal dëppawul ak démocratie Sénégal dëppawul ak li constitution bi wax donc ñoo lànk ñoo bañ ñu ko nangu et foro ferons bi ñu yem ci ay wax rek looloo tax may artu ni ko bu ñu jógee aussi dem ci askan wi pour waxtaan ak ñoom na arrêter ces force de défense et de sécurité yi dal ci askan wi sinon ay néew yu bari lañ fi compté waat ay nit ñu gaañu ñu bari te Sénégal quand même itteewul yooyu candidat yi fi nekk seen yéene mooy ñu jël réew mi ci jàmm ak salaam tabax réew mi ci jàmm ak salaam def réconciliation nationale indi jàmm ci réew mi ndaw ñi liggéey jàmm dellu soit ci réew mi loolu mooy seen yéene moo tax ba mu jógee ni day bàyyi euh, détenu politique yi mais loolu yàgg nañ ko loolu mooy indi jàmm mais li muy def tuuti na des na leneen mooy na sàmmonteeg ak ak yelleefu réew mi surtout que mag ñi dañuy wax naan c'est le gardien de la constitution mais jëfinam bi il est en train de détruire la constitution il est en de tailler la constitution sur mesure loolu aussi duñ ko nangu nous sommes à quelques heures bu fekkoon li muy wax dëgg la ci moom keroog bi décision conseil constitutionnel bi génnee la waroon approprié wu woote ni jàpp nañu date élection bi sàngam bi sàngam mais toog bu mu neex ko mel ni ku dajan ci ay nelaw naan damay woote ay jalo dialogue lan lan la ñuy gi li fi jaro wax lenn la mooy candidat yi nga xam ni conseil constitutionnel retenir nañu leen ñooñu dañu waxtaan ak ñoom pour xool ban bis ak ban waxtu la ñuy jàpp élection yi pour nit ñi dem vraiment voté ci jàmm ak salaam na mu jële woon nguur gi ci jàmm ak salaam mu joxe ko ci jàmm ak salaam réew mi am jàmm ak salaam donc loolu laa bëggoon indi wax vraiment pour dire que nous sommes tombés trop bas du fait des actes que pose le président de la République Macky sa ça ne ressemble pas au Sénégal ça ne conforte pas la démocratie. C'est aux antipodes même de la Constitution qui a demandé au chef de l'État, Macky Sall, de décider de la période où les élections, où l'élection présidentielle va se dérouler. Mais il passe outre en disant, je vais appeler à un dialogue. Les forces vives, les forces faibles, les forces mortes. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui, avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, de décider de la période où la campagne va se dérouler et l'élection elle-même. Aujourd'hui, vendredi, normalement, à 24 heures, on devrait se trouver dans les bureaux de vote pour voter. jeexoon na bu yàgg donc véritablement bu fekkee jàmm ak salaam la ñu woote nañu dellu soit xel yi wax ak ñi ñu war a waxal ñun contre ñu waxtaan mais waxtaan ak ña war a waxal on n'a pas de problème avec les candidats spoliés on n'a pas de problème avec la classe ouvrière on n'a pas de problème avec les forces vives Le problème que nous avons, c'est Macky Sall, qui libère le peuple, qu'il exécute la décision du Conseil constitutionnel. Djamam.